ayca salaamaaleykum ami téléspectateur ami internet yi seetaan Yacine Ndiab bi lan la lu xew. xanaa aye rek ñu moomee 8 mars bi awa. ku aye. ñun jigéen ñi. jigéen ñi sargal jigéen lañu wax. le 8 mars la ñu wax comme niko Elvision Média di defee chaque année daaw gisoon ngeen hommage bi nga xamni ne defaloon nañ ko maire bi nga xamni moy mooy maire Nguy gay ren nak Elvision Média dafa wacc sur le terrain sargal jigen ñi nga xamanteni ñoy ñooy baywaar bu ñu mois de mars mois de mars maireu jigen ñi la yassine ba tax na programme bi naka lay démé tay wa tay nak dañoo ñëw fi yow nee nga fi yow tay fan nga bëgg a man moom maa ngi sama chef géejawaay damay dox fël-fëlaale sànneeku jigéen bu ma gis tey bàyyiwu ma jaaykatu gerte caaf bàyyiwu ma jaaykatu ndugg yi ma jaaykatu jën yi mhm. bàyyi kenn tey ba tax na fii sa lii la kon yow yaa ko moom muy mhm. géejawaay mhm. man nag damay doxantu rek ba Pikine daal di xool borom greffage yi ñi nga xamante ni ñooy pause waaw bàyyiwu comme ni nga ko waxee kii jaay orange sax nee naa ko bàyyiwu ma ko jaay orange jigéen rek waaw koy ñu daal di ba tax na kon da ngay daal di sànneeku ma sànneeku nee naa la du ma bàyyi jaaykatu gerte caaf ndax lépp la jigéen ñi dañoo sonn. ñoo bulaahi ñoo moom lépp dóor mhm. ñi ci kër yi sax ñoo gën a sonn ñii xëy di dem. xëy defar ndékki mhm. añ mhm. dem marché marché bu naqari bi macha allah kenn du jigéen ñi. kenn du jigéen kenn du sunu yaay yi tamit. nee bu dul woon ak sunu yaay yi day metti trop. ba tax na nag macha allah noonu la ñuy def man fii laa jur ak awa daal di falaale sànneeku na la. mais da ngaa fii kay. ayca comme niñ ko waxee léegi yaas defe naa sa noir baax na macha allah sama xaritu xol boobu borom Elvision Média madame Diallo neena naa la moom mu ngi noon di jubali Pikine comme niñ ko waxee léegi man nag maa ngi fii rek sa sama chef muy Géejawaay ban marché marché xel comme nee na mois de mars lañ wax wéeru jigéen ñi rawatina le 8 mars ñu ciy sargal jigéen macha allah mu nekk journée mondiale de la femme. ah rawatina nag ñu koy def chaque année Elvision Média di ci def hommage bu rëy a di ko defal jigéen ñi gis ngeen daaw ni mu demee woon ren nag dañoo wàcc ci terrain bi ma ànd ak Yaas madame Diallo ñu fas yéene nag xool jaaykat yi comme niñ ko waxee sànq duñu bàyyi sax tey jaaykatu gerte caaf jaaykatu café pause xatu xef yi wey yi fii ci marché Xelcom bi nag dama fii ñëw tay xool ci jaaykatu jën yi ndax ku leen gën a sonn amul 4 heures du matin la ñuy yeewu di daan doole jaaykatu ndugg yi di yeewu 6 heures du matin des fois ñu am risque des fois ñu dajeeg agression jigéen daal mu ngi noonu daal yàlla mooy sàmm macha allah dañuy daal dugg ci biir ma ak sama équipe technique daal di ak ñoom Euh, naka la ñuy dundee seen seen 8 mars naka la ñuy def pour sàmm seen njaboot naka la ñuy liggéeyee ba xam ñu ngi ciy gis seen bopp lépp sur El Vision lay xewee léegi léegi lay doon. ay ca waaw kay ji su baaxee ñu daal di dem comme ni ñu leen ko waxee woon léegi ci tàmbali bi dañoo dugg nag ci weeru jigéen ñi te bu ñu nee 8 mars xam ne weeru jigéen la sargal jigéen comme ni ko El Vision defee woon daaw demoon foofu ca marché Savanel ren nag.

marché bi nag damaa dal ci koo xam ne macha allah jàmbaaru jigéen la kon sargal ko ci weeru mois ci mois de mars bi day nekk yoon yaa Yacine nuy naa la. Ndayoo maa ngi lay fay bu baax. ci loo nekk. maa ngi si jaam raq ji. nooy dundee njaay mi tey fii nii. ah xanaa di ko dund di takkale rek parce que dañoo jaboot. Hmm. ku ci nekk bàyyi nga njaboot ca kër ga. Hmm. waaw ñun ñëpp dañoo bàyyi suñu njaboot rek di xëy daw. Hmm. bàyyi yaay ak papa. d'ailleurs man sama yaay sama papa nekkatuñ fi. waaye jën yii lañ am. ci lañuy ñuy suturoo depuis kañ nga commencé jaay hmm man maa ngi commencé 2008. 2008 ba tey. waaw maa ngi di yëngu deug yaa ci gis sa bop ah wa wax deug fa yalla bu fekke deug da koy dëgg. maa ngi sante bu baax. sante yalla ngeen ci Fall sama waji ji. nga xam ki kii dama ko bëgg sama xol. ndaysan wa ma ngi koy sante nak man la Yacine Serigne fallu yow ya ban heure ngay yew ya ban heure. wa man ma <laughs> kan man daal sa te dina fekk ma juk xam nga rek man mom moy lolu mais dal en tout cas. marché ngay dem di jël ci jël masse poisson. marché poisson waaw. fele ne ci ci bo marché maraîchine waaw bo marché waaw. Mm. en face garage. dugalante gennalante nyaay mi. so xeye di nga yobbu ñaata ci marché. ah des fois nga demee 50 mm. des fois nga xol sa poste nek rek nga baña a njuut njaajëfu jàmbur. liggéey mu lew la nga xamni li ya ko liggéey. sa xaar sa dugalo ci xaar ken kon yow jàmbaaru jigéen ñi ñuy ci mois de mars bi kon Yacine mom mën na cee gis boppam. waaw kay bu baax ndax man mi damay damay xëy 24 heures sur 24. ndax xanaa nday bu dul benn du ñaar fekk ma fi ay ngoon man may nekk fii ba 19 heures damay nekk fii ba 18 heures damay nekk fii ba 17 heures wallahi asim di bañ la ko ma yab parce que boo dóoru sa waar jox sa njaboot d'ailleurs aw ma jëkkër nag damaa tàggoog sama borom kër mu bàyyi mag ñetti doomam su ma neexoon defi leneen waaye déedéet du ma ko def man dama ne jigéenu bañkat laa yaasin boobu jàmbaar la woon waaye yaasin it jàmbaar la dëgg neexul ay ayca ji su baaxee ñu daal di dem macha allah ni mu ko waxee 7 heures lay yeewu nee bu yóbbuwul marché 50 mille lu nekk ci poosam lay yóbbu dem daani ji dooleem dafa tàggoo ak jëkkëram waaye moo yor ñetti doomam jën yi nee na mu ngi ciy gis boppam te mu ngi ciy lu yal na la yàlla defal jàmm ak salaam. amin waaye nday yow rakk ju baax nga fi nga juddoo fi nga yoroo la nga baax boo ñëwee fii fekk ma fi mag Fatou Sall ñun ñëpp di nga kaf ak ñun di nga reetaan ak ñun barki sëñ Fallou man kenn soxalu ma suukar kenn déggu ma dërëm dangaa baax ma wax ko du ma géwal géer gu set wecc laa waaye dangaa baax fi nga may fekk ma toog mag yaa ngi toog ma la waa nga yëkkati kaasu kafe jox ma mu sedd guy mel ni ay milliards nday dangaa yaru dangaa rafet dangaa baax elle est belle elle est charmante elle est mignonne baax yal na la liggéey bi jik barki sëñ Fallou Aïcha mu ngi noonu <laughs> Aïcha ji dañuy daal di dem xooli keneen wax ak beneen jàmbaaru jigéen ndax jigéen ñi ñoo moom may vente ci mois de mars lañ nekk weeru jigéen ñi Aïcha su baaxee ñu dem